assalamu alaykum tout droit rang moy abonné yéen ñu ñuy suivre ci lamine TV nuyu nañ leen ziar nañ leen bu baaxa baax di leen di wax nak ku abonégul gul nga laal cloche d'identification bi te bul fàtte boy seetaan vidéo yi wala bonne vidéo bu muñ ci doon ngay laal j'aime bi ah ci solo. mercredi le 9 novembre 2022 ñu ñëwaat ak yeen benen numéro journal di Mbapat hmm? fas yéene leen jox li nga xamante mom moy résultat wu lutte simple bi mais jox leen aussi li nga xamante mooy programme lutte simple bi lamb yu paas ci weekend bi fan la amee woon ak ñan ñoo ko jël weekend bi di ñëw lamb yi fan lay amee ak ñaata lañ fa teg hmm? mais avant loolu rek ñu jox leen benn information waa CRG bu Fatick ñoo woote waat Fatick dañuy defaraat ay licence ci samedi bi incha allah mbër bu am licence wala bu mos a am licence boo demee Fatick ci samedi bi hôpital bi nekk ci marché bi ñu defaral la sa licence bu dee ku mos a am licence da nga yóbbu sa ancien licence ak 8000 bu dee ku mosul am licence da nga yóbbu sa carte d'identité ak 8000 boo demee photo yeeg yeneen affaires yi foofu lañ koy defee dañuy defar aussi li nga xamante moom mooy licence promoteur yi voilà promoteur yi da ngay yóbbu sa casier judiciaire ak 4 photo

benn waay bu tudd Théophile moo ko commenté ci commentaire yi nee na moo dafay bugg kenn waxati Oyal Sénégal Oyal la te nag li mu wax nuru na dëgg ndax fan yi moo lëmbe dëkk bi mbay lëmbe ordi lëmbe moo du lëmbe <laughs> waaw ordinateur moo jël kawlak jël ko ci kaw Toubacouta buuru Saalum fekk buuru Saalum biir capitalu Saalum dal di ko daan waaw poids léger yi ki nga xamante ne moom mooy jaasi pël foofu ca kawlak jaasi pël moom moo ko jël jël ko ci kaw yanka Junior biñ fa jëgé le 6 fi nga xamanté mom moy Dakar Adrien Senghor amon na lamb ki nga xamanté mom moy mooy du fay ordinateur Oyal Sénégal mom moko ñëwaat jël jël ko ci kaw usine technique bu Ngou Ngunjaan han ah. kon ordi dafa jël samedi jël dimanche instant bi ñuy wax mom ma sha allah laf chat légui le 6 ci dimanche ba tay fi nga xamanté mom moy Ndorong Séeréer amon na lamb fofu pakku bu leeraan moom moo ko jël jël ko ci kaw Famara Baas bu simal le set ci lënd bi Fimela moo doon jeex Fimela ngañseen bu njagañaaw Johnson hmm, moom moo ko jël jël ko ci kaw Toubacouta buuru Saalum wala borom jamono kon Toubacouta moom dafa ñàkk ñaari final ci weekend bi diggante samedi ak lundi. poids léger yi foofu ca Fimela Moussa Kaling bu Mor Fafa koo jël ko ci kaw du Jam Teri bu Pointe Sarène raw gàddu yi Boros El jël ko ci kaw Ahmed Dior double moteur bu Palmarin donc foofu dañuy taxaw ci waa Marfafako yi ko macha allah Marfafako village Boros jël na Moussa Kaling jël ay nag yu bëri ñibbi nañu foofu buñ jógee foofu ñu ñëw si programme bi mais laataa ñu ñëw si programme bi comme ni leen ko waxee rek trophée meilleur lutteur du mois bi nominé woon nañ ñetti mbër diggante ordinateur. boy maron ak rajaxe ci mois d'octobre bi mais vote yëpp danaka voilà à 99,99% vingt dix nañ ordinateur est le meilleur du mois d'octobre donc ordinateur mom mo jël trophée meilleur lutteur du mois d'octobre ñuko féliciter bu baax diko ñaanal yalla na affaire yi gëna yok voilà. mais wa pibori ñoy ñooy defar trophée bi sha allah ay pibori nek fi ci ñaning ci petite côte bi digante mbour ak Alpha fadiouth lepp lu dem ci walum communication visuelle dañ koy daf voilà photo yi ni ni boko indi ñu defal la si tableau voilà tay bo bëgg ñu defal la ko mayo yi sénégal ya nga fa bo bëgg ñu bindal la ay mayo original bindal la ci lu la neex yónnee la ko ak fi nga nek mayo benen club bo bëgg am nañ ko do koy bind folocage ay t-shirt ay mayo lepp dañ koy def ay panneau publicitaire dañ koy defar dañuy bind ci support yëpp bo indé sa auto sax ñu bindal la ci li nga bëgg ay kaasu ndéké ka ñu defal la ci ay photo wala yoy nonu bindal la ci la neex donc wa pi bëri ci yoy lañu yëngu lepp lu dem ci folocage sérigraphie genre affaire yoy nonu ha ah. numéro bi mo nek nonu ci souf léegi programme lutte simple bi nii lay demee ci weekend bi weekend boo xam ne làmb yi xaw naa bëri macha allah le 10 le onze ak le 12 jeudi vendredi samedi fi nga xamante ne moom mooy coom bi Ndiak Sarr am na làmb coom bi ñu ngi fay teg 900000 si ñetti fan. le 11 fi nga xamante ne moom mooy palmarin am na mbapat palmarin ñu ngi fay teg nag ak xaalisan voilà le douze bi moom mooy combat nommé yi foofu ca palmarin. waa mais de la solidarité ki ko jiite di Mansour Seck ñoo fa tëgg mbapat le 11 le 12 bi ci samedi bi ñu tëgg nag li nga xam ne moom mooy combat nommé yi grand combat bi di Maam Fadé bu Diofior ak Ahmed double moteur bu Palmarin am na fa yeneen combat yu neex macha allah lagandong bu Fadiouth war faa laaleeg Baawa Nuunu bu Mar Fafako maxalaay bu Joal war faa bëre ki nga xamante ne moom mooy 15 bu Ndangaan Mbay Diop bu Palmarin war faa bëre ak Ndisu Coor rakk Mbalkamaak fële ca Marlo donc loolu ay combat yu neex lañ ah voilà ak yeneen ak yeneen yu saf macha allah léegi bu ñu fa jógee tamit wala le 11 le 12 ak le 13 le 11 ak le 12 ak le 13 tout droit Joal Fadiouth am na mbapat bu rëy ñan ñoo woote ñu ne waa ay ASC ñaari tali bu Joal Fadiouth di tëgg mbapat di ko tegee ci 30 mètres bi tegal nañ mbër yi nag ak télé écran plat ak saaku ceeb toftal nañ ci xaalis tamit ah. Joal Fadiouth le 11 le le onze le 12 ak le 13 vendredi samedi ak dimanche ah Joal Fadiouth ñu tegal mbër nag télé écran plat ak saaku ceeb ak xaalis ah Joal Fadiouth léegi buñ ca jógee le 11 ak le 12 aussi fi nga xamante ne moom mooy sum loog am na làmb sum hmm, ginnaaw fu njuñ sum ñu ngi fay teg cinq nag ci ñaari fan cinq nag lañ tegal mbëri yi sum cinq bëf le onze ak le douze novembre bi deux mille vingt deux foofu vendredi la ak samedi waaye ci samedi bi ba tey le douze fi nga xamante ne moom mooy njaafat am na làmb ju rëy njaafat waaye waagu production ñoo fa woote tegal nañ mbër yi un million de francs CFA njaafat escale lay doon voilà léegi le dix le onze le douze ak le treize. le 10 le 11 le 12 ak le 13 fi nga xamantene mom moy mooy nga xamantene affaire yee changé mais Diouroup boobu mo don tijji saison bi côté yi voilà mi ngi non. lamb ju mo fa am ñu tégal 1 le 13 le jeex ci dimanche yi poids lourd voilà le 10 le 11 le 12 ak le 13 tout droit Diouroup buñ fa joggé le traise bi ba tey dakaar am na làmb Adrien Senghor wala terrain gaal gi dakaar am na làmb le treize novembre dakaar ñu ngi fay teg deux millions ñaari briques dakaar deux millions lañ fa teg ci dimanche bi le treize. le douze le treize ak le quatorze aussi fi nga xamante ne moom mooy Marfafako ko am na làmb ñu ngi fay teg ñetti nag ak ñaari écran plat ak cinquante cinq mille francs le 12 le 13 ak le 14 foofu di lay jeex marfaafa ko mais bu ñu fa jógee le 15 le 16 le 17 ak le 18 fi nga xamante ne moom mooy maya ci île maya am na làmb ñu ngi fay teg ñetti nag ak benn saaku ceeb ak cinquante mille francs loolu lañ amoon ci information làmb baaxe nañ leen ko li ngeen ñu mën a delloo mooy zem ak abone ak partage ñu ngi leen koy ñaan di leen di wax tout droit zulum zalam rang muy abone